waaw tey dañoo ñëwoon euh, président Macky Sall ci collaboration ak président Idrissa Seck ginnaaw ba élection yi ñu nekkoon résultat yi tàbbi te ñëpp xam ne ni mu demee gën a léegi nag président président Macky Sall ci yëg njabootam ak bàyyi leen xel waxtaan ak président Idrissa Seck ñu envoyé ay nit ñu am solo am taxawaay buñ ne la réew ministère de la un ministre de la république ñëw na seet si la dangay xam ne état ñëw na seet si la ñooñu nag ñoo ñëwoon tey. pour waxtaan ak ñun mooy waxtaanu ñu bokk mbir te bëgg mbir mi dox mbir mi dem ci kanam moo na ñu waxtaan ak ñun pour xool résultat yi ñu nekk maanaam élection yi ñu jógee li ci xew te gënaluñu mooy résultat yi ci am lan moo doon waral lan moo ko waral ñun tamit bi mu ñëwee ñi nga xam ne ñoo composé woon la délégation waxtaan nañu ñoom de manière franche sincère et ouverte wax leen ne leen dëgg-dëgg lii leen jàpp ne lii moo doon jafe-jafe yi te ñoom tamit déggu nañu noté nañu te xam nañ ne jàpp nañ ne dina am résultat biñ ci xaar mais à côté de cela tamit wax leen nañ leen nan la ñuy def ñun ci ñu jàpp en tant que acteur nekk sur le terrain nan la ñuy def ba leneen luñ songaat daan ko mooy li si njëkk mooy ubbeeku ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii te desoon fii téye woon euh, flambeau bokk benn bokk yaakaar à Thiès mooy tëdd liste yeeg wala ñu nekkoon ci liste wala ñu nekkoon ci dans la coalition bi président désigné woon président Idrissa Seck ak Macky Sall ñooñu. li leen liñ liñ njëkk a xëcc ko ci seen bopp mooy ouverture maanaam ubbeeku goo xamante ne ak tàllal loxo tàllal loxo suñu frère yi nga xam ne jàppoon nañ ne élection locale yi gisuñu ci woon seen bopp waaye nit ay nit buñ bokkee réew bokk ab gox bokk bëgg-bëgg ci gox boobu mën nañoo am ay jafe-jafe benn moment waaye jafe-jafe yi warul continuer looloo tax ñu tàllal loxo bu baax ñëpp koo mënti doon ak foo mënti bokk te ba tey jàpp ne Sénégal gi war nga cee participer tàll nañ la loxo te loolu xam naa ne niñ koy doxee ñun di ko waxee suñ kilifa yi ci kaw tamit dinañ ko doxee noonu waxee ko ko ba seen njaboot gi yëpp ànd pour le bénéfice de de Thiès pour le de Sénégal. lan mooy seen gis ñi wax ne il faut que ak waa xam nga xam nga xam nga il faut se dire une chose parfois njaboot boo ko doonee am na foo xamante ne da nga koy mate. am na loo xam bu ñu ko nit ñi di répété di répété sax parfois day mel ni ñun ñi nekk njabootam am na suñu taxawaay lu des ci benn côté mooy dina ñun war nañoo gën a jege population bi loolu jàng nañ ko ci lecture boobu lañ ciy njëkk am taxawu leen lu ëpp lañ la doon taxawee moo tax parfois les gens pensent que ne wuy saa yoo nit ñi ils n'ont pas voté pour nous loolu dina am lu muy yàq dara ci sunu engagement en tant que réew mi en tant que Thiessois daan nañ daan bokk ak nit ñi seen bësu bànneex daan bokk ak ñoom seen bésu naqar loolu dara changé wuñ tey lañ gën a defaraat sunu laxasaay pour gën a taxaw ci soxla Thiessois yi buñ koy jëlee ci sunuy pexe di jox ko Thiessois yi dinañ ko def bu ñu koy jëlee ci sunu ñaq jox ko Thiessois yi dinañ ko def bu ñuy jël sunu temps sunu énergie mettre ko au service de la population thiessoise dinañ ko def donc élection yii taxaw njàngat rek lay doon mais yàqul dara ci suñu engagement par rapport au Thiessois. waaw xam nga ñun dañoo bokkoon ci parti bu ñuy wax APR élection locale yi jot ñu dem ak bannière bi wax union citoyenne bunt bi ci lañ demee woon ba yàlla may ñu résultat bi ñu am loolu moo ñu indi woon fii tey. waaw gisuma président de la république ne xam lan ma waral surtout défaite bi biir Thiès euh, yéen teeloon ngeen gis ne ñi fi teg. gënul woon tey est-ce wax waxtaan ngeen seeg ak euh, ñi fi yabal fii. waaw ñi fi teg mënuñu gagné loolu moom ñëpp xam nañ ko parce que ñun aussi tamit ay Thiessois lañu fii la ñu dëkk d'abord euh, bu ñu dëkkee ci commune bi ñu wax Thiès Nord ñu gis commune bi ni mu mel bari ay manquement yu bari fa nekk bu ñu bëggee xëy euh, benn maire nekk fa sept ans. ñu xëy bëgg ñu ko delloowaat kooku responsabilité la si ñun ñëpp ku si nekk taxaw bañ ni loolu mënu fee loolu taxoon na ñun tamit ñu taxoon ni loolu du fi am euh, ba tax ñu demoon suñu benn bannière bu ñuy wax union citoyenne bunt bi voilà. li li jàll mi ngi suñu ginnaaw 23 janvier tey lan ngeen wax euh, ak monsieur le ministre Malick Sall. waaw ministre bi président yónni na ndaw ay ndaw muy monsieur le ministre Malick Sall ak rakam Alioune Sall waxtaan nañu mais ñun li ñu waxtaan ak moom bu ñu paree aussi tamit dañuy demaat suñuy responsable base waxtaan ak ñoom encore parce que wax nañu tamit enjeu yi fi nekk si réew mi ak ban taxawaay lañ ci war a am mais ñun it aussi tamit am na lu ñu taxaw wax ko parce que dañu dëkk si commune boo xam ne commune bu metti la ak quartier boo xam ni quartier bu toll ni Medina Fall muy quartier bu mag depuis 1960 ba léegi quartier bi di dund amul mosul am ministre mosul am député mosul am dara kon yooyu défi yooyu bu nekkee suñu kanam ak ay salle de classe yu def ay 150 kon loolu suñu kanam la nekk pour ñu taxaw lépp lu ñuy def loolu war naa ta war nañ ko teg suñu kanam pour ñu saafara loolu looloo tax waxtaan bu ñuy ñëw dañuy taxaw teg loolu ci taabal ji incha allah solution daal lañ ci bëgg. incha gars yi bu ñu toogee fa lañ tànn seen tànn rek mbaa du demaat la même waaw affaire bi du nit du problème mu nit du problème mu ñun suñu bopp ñun suñu bopp amuñ solo waaw ah, problème bi mooy suñu problème commune la ak ni mu bindoo ak situation yi suñu quartier yi nekk situation yooyu la ñu bëgg mu changer. yooyu ku ku taxaw pour changer ko incha allah mën nañ taxaw waxtaan ak yow mais ku situation yooyu moom moom mooy suñu priorité daal loolu lañ teg suñu kanam. mais am na ñu gis ne bu njaboot gi toogoon ba pare yéen waa Thiès ngeen waxtaan waxante dëgg. Mhm. la doxul ngeen waxtaanee ko. est-ce que gënul woon avant. ñuy jël gars yi par benn benn. wala avant président di yebal nit ñi. non njaboot gi toog waxtaan ñii ñii waxtaan day fekk ñu bokk fu ñu jëm ñun bokk ñu woon bannière bu ñu demee. waaw parce que ñoom programme bi ñu tegul waaw jamono ji jamono ji aussi mënuñu woon toog man mënu ma woon toog ñoom waxtaan personnellement voilà il faut kilifa gi nga xam ni moom moo taxawoon bàyyi ñu noonu moom rek moo mën a taxaw waxtaanaat ak nit ñi ñu mën a xool nan la ñuy def mais sans loolu moom ñooñu moom mënuñu woon a toogaat ñu wax parce que gis nañ nu askan wi tamit doyal nañ si ñoom voilà. mais gëm ngeen ne mën ngeen euh, waaw ça dépendre si ñoom rek. man man ñun li ñu li ñu li ñu li ñu taxaw teg ci taaba ji leer na ñun du suñu jëmm yi moo am solo suñu li ci ëpp solo mooy suñu commune ak suñu quartier ñu dëkk nan la ñuy fexee ba problème yi fa nekk ñu régler ko loolu incha allah bis buñ ci jubloo rek la lépp mën naa nekk. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam euh, man la Lat Dior Ndiaye euh, responsable politique euh, zone ouest ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy jeunesse républicain. Euh, nekkal fi euh, coalition bi Benno Bokk Yaakaar euh, depuis 2014 nag ñu ngi liggéey lu jëmale parti bi kanam di lu jëmale coalition bi kanam boobu ba léegi ñu ngi def lépp lu ñu mën ak lu ñu mënut pour sagal président Macky Sall waaye au retour dañu gis nii amul benn considération bu ñu jox li may wax nag dama koy adressé son excellence monsieur le président de la république ngàcce ngalaama yow li la waroon ci Thiès yëpp def nga ko euh, ñi nga fi dooleel bëri nañu euh, ñi nga xamante ni ñoo la fi waroon a liggéeyal liggéey bu jaar yoon waroon na bëri waaye malheureusement demeewut noonu fukk dañuy gas fukk di suul li koy wane mooy mënuñu fi nekk di la xeexal subaak ngoon guddeeg bëccëg benn bis ñëw mel ni ñun amuñu benn benn benn benn benn njëriñ ci parti bi. loolu man laa mënta loolu laa mënta concevoir. mooy lan mooy mënuñu nekk ci euh, coalition bi nga xamante ni moom mooy Benno Bokk Yaakaar bokk ci jeunesse euh, alliance pour la république di liggéeyal président de la république te ñi fi nekk ñi ci ëpp joxuñu considération la preuve mooy. tey jii nii am na ay ay ay messages yu mu fi yónnee fii Thiès pour ñu ñëw euh, defaraat base bi mais ñi ñu fi gis ñu leen di recevoir am na ci ñoo xamante ne amuñu fi benn utilité ëpp ñu benn crédibilité ba ñuy xeexal son excellence monsieur le président de la république ñu ngi jàkkaarloog ñun lu ñu defar ñu yàq ak di ñu dingat tey ba ñu ñu ànd am waaye bu amee ñu ñëw fekk si ñu dañ ñoo war a jox ñun tamit suñu cër. dañ ñoo war a jox suñu cër xam ne démb ñun la woon ak ñoom. waa réew mi ñoo ak ñeneen ñu dul ñoom. ok maanaam ñu bokk APR comme yow. ñi bokk APR kon ñun ak suñu parti allié yi nga xamante ni yàgg nañu ci Benno Bokk Yaakaar di liggéey tey dañu gis frustration dafa am mënuñ ñu duggee dakaar ñëw ba cees ne dañu bëgg a lijjanti problème mu Thiès te jëluñu ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy lijjanti son excellence ñu ngi lay wax ni am na ci yoo xamante ni dañ lay nax. kon kon ñi ñi ñuy dugal ñoom du ñu wax problème bi. ñi ci bëri amuñu benn utilité ma ne la du ñoom ñooy rek le problème bi ñun xamante nañ suñu biir waxuma ne nag ñëpp ñoom ñoo bon ah, mais ñi ci ëpp amuñu benn benn benn benn benn benn benn utilité amuñu benn benn njëriñ ci li nga xamante ne ni moom nga bëgg mu saafara wu cees lu dul dañuy saboter je pèse bien mes mots man la Lat Dior Ndiaye nëbbatuwuma li may wax dama ko xam. ñu ci bëri amuñu benn njëriñ ci coalition bi ñu nekk lu dul dañuy saboote ñooñu ñu ñu bëgg a te liggéey suñu liggéey parce que président de la république nañu waxante dëgg li nga mënoon yëpp defal nga ko Thiès gàcce ngalaama li may wax nag mooy nañu jox suñu gëdd nañu jox suñu gëdd encore une fois sinon bu dul loolu gis nga li nga xamante ni moom moo fi xew ci local yi lu ko raw dina fi xewaat ci législatif yi jëm ak yow nag élection présidentielle parce que ñi nga xamante ni ñoom nga jàpp ni ñoo lay liggéeyal dañ lay yàqal. mais ñi ñuy convoqué bon en fait euh, ñi leen convoqué mooy ñi nga xamante ne nii tey jii nii bon ñoom ñoo bëgg rek di saboter ah man loolu laa jàpp loolu laa jàpp ñoom ñoo bëgg continuer di saboter parce que affaire bi ay maguy la ci biir. parce que bu fekkee ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéeyal président de la république bu ñu ñëwee fii ñu leen di nëbb li nga xamante ne nii moom lañ fi war a wax mooy bëgguñu dara leer. convocation daa am bien sûr dafa am par par parloo parce que am koo xamante ne nii vraiment moom moo moom moo moom moo moom moom moo xam fii metti nga ne bëggoo ko gis bëggoo ko recevoir mooy yow pare woo mbir mi saafara. dañuy nëbb nëbbal quoi taf bien sûr te li may wax du tey laa koy wax man président de la république bind naa la ñaari yoon lettre di la wax kaawu cees parce que vraiment lu mu gàtt gàtt nag yàgg nañu ci làmb ji. xam xam bon du. question wun recevoir wuñ ma mais sama bëgg euh, coalition bi bëgg sama parti bëgg aussi situation Thiès changé moo tax sax ma ñëw jàkkaarloo yéen di wax mais waxuma ndax dama nekk benn mécontent wala koo xamante ni euh, dama mer rek di wax mais damay wax non damay wax euh, ba tey aussi du loolu mais dama xam ni coono bi président di daj vraiment dafa dafa dafa war a am saafara li nga gis jëmul kër li nga kër jëm demul bay jëm kër wax naa leen léegi bind naa ko deux fois lettre élection présidentielle bi mu passé bind naa ko lettre recommandé tout récemment avant élection locale yi bind naa ko lettre di ko signalé kaw Thiès nañu jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk di liggéey taxawaay bi ñu am mooy dañu bëgg a lënkaloog ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy liggéeyal te bopp ba léegi bàyyiwuñu fait. Euh, Euh, euh, euh, li nga xamante ne ni moom nañu bëgg wax ci loolu mooy am na fi aussi ay jàmbaar yu fi nekk di ko liggéeyal mais ñooñu aussi ay difficulté rek nañu dëkk lu ñu liggéey ñu yàq ko man de li may wax mooy président Macky Sall vraiment gàcce ngalaama li la waroon ci Thiès yëpp def nga ko ah mais nag dafa jot. mais ñi yàq ñan la ma ñu ñan la. ah mais <laughs> xam nañ seen bopp jarul ñuy tudd. yéen ñi ma yéen ñi may posé question bi sax xam ngeen ko. xamuñu dara ñun xam lan moo xew. may posé question bi vraiment euh, xam naa ni vraiment xam ngeen ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk di di di yàq. bon en fait euh, li ma li ma leen bëgg a wax daal mooy sama déclaration lenn la monsieur le président de la république vraiment sonn nga ci Thiès li la fi waroon lépp def nga ko nag. waaye li ma lay xamal mooy ñi ci ëpp ci ñi nga dooleel dañu ëlbatiku def ko gànnaay di sonal sa waa kër maanaam ministre yi ak DG ñi fi ëpp ci ñi nga dooleel dañu ëlbatiku jël loolu def ko arme di sonal sa waa kër tey nag uude nu mu la gisee la lay ëwalee ñi ñu fekk si sax dañoo dem ba xam ne ñun vraiment euh, joxuñ ñu importance tey mérito wuñ ko parce que ñun dañu mës a liggéeyal coalition bi dañu mës a liggéeyal euh, alliance pour la république Euh, vraiment son excellence ñun dañu bëgg problème bi yow nga jëlal ko sa bopp lijjantil ko sa bopp. waaw dañuy yaakaar naa ne dañuy gindeeku incha allah ndax initiative bi ñu woowee dañu ko rafetlu trop sax ndax euh, dafa am loo xam ne lii moo ñu taxoon a dem ci suñu lokalu bopp suñu bannière bopp. kon tey bu président te ñun liggéeyaluñu kenn ku dul président kon bu président tey woowee wootee fii dajale fi ñii pour ñun ñu ñëw waxtaan ak ñun wooñu dañ leen di wuyu ndax nag ñun président rek la liggéeyal dafa fekk ne mbiru gox bu dikkee moom da kenn ku nekk da ngay taxaw fas yéene jëmale sa gox te li nga xam ne moo baax ci suñu gox kenn gënuñu koo xam ñun ñu fa dëkk la nga xam ne baaxul ci suñu gox itam bu buñ ko gisee ñu jëmale ko fa dañ koy dañuy taxaw lànk. seen gox mooy dañuy taxaw bañ zone nord waaw zone nord yëpp. waaw ndax dañu xam ne zone nord ki fi nekk baaxul ci zone nord te ñun zone nord zone zone nord moo ñu ñor askanu zone nord moo ñu ñor moo ñu taxaw taxaw dem ci beneen bañeer tey nag ci législatif la ñu jëm. fas nañu yéene ànd ceeg président ànd ceeg suñuy camarade suñuy staff suñuy ñëpp ñi ñu am ñi nga xamante ne fas nañoo yéene jox législatif yi ñuy jëm fas nañoo jox euh, président ndam lu mucc ayib. lan mooy condition bi nag. condition bi mooy charte bi mooy lan. ka condition bi. mooy fas yéene liggéey rek jëm ci jëm ci kanam. amul dara lu ngeen sas président mu dooleel leen wala mu jiital ndaw yi wala jigéen ñi. Euh, politique euh, mhm. ku ne xam na ne ku amul doole doo dem. waaw ku ne xam ne ko amul doole doo dem. waaye nag ñoo ngi sant yàlla. seen digganteeg bunt bi waaw. suñu digganteeg bunt bi dañoo nekk bunt bi wax naa leen ko coalition coalition élection locale moo ñu ci dugal. Mhm. waaw te am na bu fekkoonte ne sampaloon nañu li ñu gënal. choisiroon li ñu gënal kon ñu dem fen ndax pare ngeen. waaw waxtaan ak euh, njabootu président Idrissa Seck wala si boppam bi nga xam ne moom moo wax ak président Macky Sall. Idrissa Seck waaye seen njaboot yi mënuñu jubóo njabootu président Idrissa Seck. Mhm. ak njabootu président Macky Sall jotewuñu dara lépp nga rafet. waaw lépp nga rafet jotewuñu ah, dara. waaw ñeneen ñu nanguwuñu ñeneen ñu jiite leen. ah ñun ne ba ñu ko ba ko ba ñu ko déggee. Hmm. woote nañ fi fii ci auditorium bi. Euh, benn kii boo xam ne bii mille places dafa fees dell. benn taxon boo xam ne dafa fees dell. kon mburoog soow bi foroxul. waaw mburoog soow bi foroxee ñun loolu bor seeni borom sart nañ ci koloria xëj na bu danee xanaan waaw waaw comme sotti nañ ci koloria mburoog soow kañ bañ sottee koloria mu nee xanaan te ñun dañu ne jubóo gi dañ ne woon seew parce que amoon nañu problème parce que da ngay gis ñu dëkk benn kër sax ñii far fii ñii far fii te loolu rafetul ci askan wi kon bu Mbour ak Sow àndee juboo fas yéene liggéey ñun dañ koy rafetlu. kon yéen awa du kuréel àndal ku leen tegal mu jiite département bi pare ngeen pour jàppale président Macky Sall ku mu teg ci kaw mu teg fi koo xam ne kii mën nañu ànd ak moom. ku ngeen mën a àndal. ànd ak moom ku loxoom set. ku rafet liggéey mbaa ñu ñu teg ñu fi ñu jiitu rek. jiite woon benno bi bu ñu ko defaa tête de liste pour département bi du ngeen ànd ak moom. xalaatuñu ko. Hmm. ko local bu ko jiitalee département doo ànd ak moom. waaw. déedéet déedéet mburu soow euh, du ñàkk a juboo gi. soit boobu erreur la. est-ce mën naa bañ a répété nag. ndax loo gis boo alerté ñi ñay nit. bu ñu ko déggee da nga xam la ko waral. Bon, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'abord rendre grâce à Dieu, mais aussi féliciter le président Macky Sall et le président Idrissek de l'initiative qu'ils ont prise en envoyant des, des émissaires d'éminentes personnalités euh, de la coalition Benno Bokk Yakaar pour qu'ils puissent venir s'enquérir de la situation à Thiès pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants des résultats non souhaités qu'on a eus lors des dernières locales. Voilà, et, et, et dis-nous, qu'est-ce que vous vous êtes dit Est-ce que euh, euh, vous avez tiré réellement les, les leçons de cette défaite oui, on a parlé, nous avons parlé par, sur pas mal de sujets, mais l'essentiel le, de la discussion tournait autour des causes mais de, de, de cette défaite, mais aussi qu'est-ce qu'il faut faire au sein de la coalition pour remettre les pendules à l'heure et effectivement pour gagner les prochaines élections législatives. Et on a parlé sans, sans, sans, sans, sans guillemets On a parlé sans, avec toute la sincérité requise entre des collaborateurs et nous avons, nous avons fait le tour des différentes difficultés qu'on a eues lors des élections et on a transmis, c'est pour transmettre des messages à la fois à nos deux leaders, le président Idriss et le président Maxal et je pense bien que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que c'est eux qui sont à l'origine de, de cette initiative pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le bien de la coalition Benno Bokk Yakaar pour le bien de Thiès, mais pour le bien du Sénégal. On a longuement discuté, on a parlé de manière très sincère avec le cœur pour remédier à toutes ces difficultés. Mais aussi la deuxième question consistait à faire comme, quelles sont les solutions, quel est le chemin à emprunter pour enfin réunir toute la famille de Benno Bok Yakar. Donc euh, on a donné des pistes de réflexion et ils vont l'approfondir et je pense bien que ça va porter ses fruits. Le maître mot, c'est l'ouverture. c'est l'ouverture. On a eu des gens, c'est normal qu'il y ait des frustrations après des investitures, mais c'est anormal que des gens hein, qui ont les mêmes aspirations, qui ont la même obédience politique, qui ont la même ambition pour le Sénégal, c'est normal qu'ils puissent trouver des points de divergence, mais c'est anormal que ces, ces divergences-là persistent. C'est pourquoi nous, qui étions là à gérer la liste de Benno Bokyakar, nous tendons la main à tout le monde. Nous sommes dans l'ouverture et nous voulons que toute la famille de Beno Bokeyakar se retrouve autour de l'essentiel, c'est-à-dire Thiès et le Sénégal. Le Mouroxo reste toujours intact à Thiès Plus que jamais, plus que jamais. Vous savez, les, les, on a coutume de voir au Sénégal que certaines coalitions euh, n'ont pas longue vie souvent. Mais cette fois-ci, je, je, sais et je suis convaincu que... Et, je le dis pas pour le dire, mais je le dis parce que je l'ai lu dans le comportement de mon leader, le président Idrissek. Je le dis parce que je l'ai lu, je l'ai déconnecté dans le comportement du président Macky Sall par rapport au président Idrissek, que cette Mouroxo, cette union, cette jonction pour le Sénégal est partie pour durer très longtemps. Donc un avenir sûr et réel, pour uniquement, pour uniquement exclusivement l'intérêt du Sénégal et de Thiès. Alors, ce qu'il faut retenir Euh, c'est euh, un général d'armée qui, après une euh, longue et lourde campagne, a estimé nécessaire de regrouper toute son armée par section, par secteur, pour leur demander ce qui n'allait pas et leur demander également de proposer des solutions par rapport aux problèmes qui ont été soulevés. Voilà ce qui, qui, ce qui nous a regroupés aujourd'hui et nous en sommes sortis avec une euh, véritable satisfaction. Euh, satisfaction du point de vue d'une certitude de la future prise en charge de toutes les préoccupations qui, est, qui ont été soulevées en présence de cette délégation-là. Euh, nous avions été habitués à Thiès par une sorte de rétention d'informations venant de la base pour aller vers le haut. Alors aujourd'hui, avec ces missions-là, euh, nous pensons, nous, nous espérons fortement que tout ce qui a été dit a été retenu et sera transmis par l'autorité euh, nationale, qui le président Macky Sall. Pour répondre à certains qui euh, pensent que le problème des Thiessois devrait par les responsables de Thiès d'abord, En politique, la hiérarchie compte beaucoup. En politique, tout peut se régler sur le plan vertical. Il y a des problèmes, énormément de problèmes au, au niveau horizontal, qui sont vécus par les militants à la base, mais qu'ils peuvent, qu'ils ne, qu'ils ne peuvent transcender qu'avec l'appui de la hiérarchie. Et c'est ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Chacun a sa lecture politique. Il y a autant de personnes euh, intelligentes, je veux dire, sur la scène politique qu'il y a de, qu'il y a de représentants. Alors aujourd'hui, chacun y va de son analyse, mais j'estime profondément que euh, voilà, c'était important que les gens viennent pour écouter la base, euh, écouter, tenir, tâter le pouls pour pouvoir transmettre les, les, les ressentis de, individuels au niveau des responsables à la base. Aujourd'hui, les enjeux d'une unité qui devrait vous conduire à cette reconquête de Thiès Alors, la Thiès n'est pas perdue, on ne peut pas de reconquête parce que nous avons trébuché, nous avons et on a euh, perdu au niveau des, des, des, des mairies. Mais je vous assure que les élections locales n'ont rien à voir avec les élections législatives, ni avec les élections présidentielles d'ailleurs. Ça ne s'organise pas de la même façon, ce n'est pas les mêmes cibles, ce n'est pas les mêmes responsabilités. Les élections locales, encore je le dis, on ne peut pas obliger Modou et Samba de se ranger derrière tel. Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de le dire, c'est pour les locales. Mais euh, pour les législatives, c'est des enjeux nationaux Alors, c'est le parti, c'est la coalition qui veut et qui envoie ses émissaires, qui envoie, qui présente ses candidats et qui sont euh, sous, euh, repré représentent évidemment la liste au niveau, au niveau départemental et au niveau régional. Donc c'est pas la même chose. M. Mais absolument, mais absolument, absolument. Et on est quand même, oui, parce que en fait, le département, les élections législatives, c'est le département et, et le national. Aujourd'hui, le département, c'est nous, c'est des députés de Bernard Bokyakar qui siègent à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas parler de reconquête à ce niveau-là, c'est juste une consolidation des acquis que nous avons eus jusqu'à maintenant, c'est tout. Mais euh, rien n'empêche qu'une évaluation à mi-parcours, comme on vient de le faire là, euh, puis, euh, arrange les choses.